allahu rabbul alamin laay tàmbale mën mën lamin julli ci xëyril alamin tey tagg ngeen njéeli maan danaa fi junju ay mbiram lu néew lu tuut lu ma ci xam xawma azakaay azakaam yàlla xamoon rek lu mu doon la wax fonk su naam li tax mu doon gën ji imaam ak ni jëmmam niroog jundaam ak ni meloon ci alxuraan danaa la wax ci ay tukkeem asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci suñu télévision académie Minane ñuy am mbégte ak kontaan di leen jaajëfal ñu ngi xam ne moom la ñu jagleel Serigne Abdoul Khadir Mbacke nag ci fan ci weeru août si atum 2022 ñu fi nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh mu Serigne Abdoul Khadir Mbacke di ngeen dégg kàddu yi nga xam ni moom lañ fay jëlee te muy kàddu yoo xam ne ay kàddu yu témoigné la waaye tamit ay kàddu yu seede la ci ki nga xam ni mooy Serigne Abdoul Khadir Mbacke ginnaaw Moustapha moom tamit dinañu gis bu baax li nga xam ne moom moo fa jot a xew ci màggal gi ak waañ ba ak ni nga xam noonu la mbokk taalibe yi di doxee te bis ba daal di mujjee fii nag nga xam ne moom moo di kër Serigne Modou mu Serigne Abdou Khadir Mbacke moom tamit lépp lu fi dikkee rek dinañ leen ko digtal ci télévision académie bi naan kon ñu ànd daal di xool image yi. nga daal di jaaxle naa ko diw mu daal di lay dàggant yow leeralanam loo xamul woon xam nga li tax mu sëñ bi ko fal xayrul imaam danaa la wax na kañ la doon bis bam nga ne addina moom fële ñu naa daarul alim moom la wala fii woowe ndaam cheikh abdourahman ma nga fa woon muy ñetti fan ciw tam xarit sëriñ bu mag bi ne bërit ne ma wool sama xarit am naa fi gan gu kiimaan nañu ma wool cernu mu ñëw ma wax ko lool musula xew fenn fudul fii ceernu ñëw lii la ko yónni daal di ñaan danaa la yónni nga tudd gan gii sa yoon wii na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yamal xiyaam du ngi samaan ku gane adduna yaram waaw li ko waral mooy li waral murid yëpp xam ne Sëñ Abdou Khadre alalu yoon wi la mooy imaamu imaam yi euh, bokk ci kilifa yi nga xam ne ñooy njabootu Sëñ Tuubaa te ñun amuñu lu dul njabootu Sëñ Tuubaa Euh, ñu war a teew def ko bisum ñaan ndax ku mel ni si Abdou Khadre bu gënee si àdduna xéewal bu jóge suñu borom la jëm si jaamu yàlla yi foofu jaamu yàlla yi taataan ko jëriñu loolu kon ku ñëw sa bopp nga ñëwal kenn ñëwul ngir ngir ngir dolli fi dara kon dañoo ñëw ngir jëriñu gis nañ sëñ seex mu feddaliwaat kóllëre gi dox suñu diggante te yàgg lool tàmbale woon ci wayjuró mu tedd woo si Abdou Khadre moo ñu waxoon nañu euh, sëñ Tuubaa moo leen moo leen sóob moo leen dimbali kon loolu lu am solo la mu sëriñ dafa mel ni néeg waaye dongo yi ñooy per bi ko wër ñu ñoo di wéttali lii daal moo ñu fi indi waa kaddu yi ci mën seede mooy la sëñ Muntaxa wax rek laay jëlaat sëñ Muntaxa nee na sëñ Abdou Khadre xaal xaalu sëñ Touba la joo xam ne dafa soppali ku jëmm <laughs> xaalu sëñ Touba ju soppali ku jëmm mooy sëñ Abdou Khadre ku ne xam na ne sëñ Abdou Khadre daawul xalaat ngir wax boo gisee si Abdou Khadre da nga naan xanaa li ko suñu borom defal mooy xëb li yee yaa wa xëbo kaw na xaq lii kutubin xaddu zilat fi naq li li mu lay tontu fi saa si da xam ne lii moom dara du ko dindi kooku moom yamul a kenn sëñ Tuubaa la ju sotti jërëjëf <laughs> ndax leen a topp ay jikkoom sunna sikkat daa ami góom ngir moo ko daa faj du keneen mahamalatu naa si nag li mu ci def moom lépp a jag mësul a sàkkal kenn dégg mësul safaan kër yëpp yam fi moom daa mel ni diine moo ko moom daa mel ni daa yor pusaam daa mel ni moo wutu yoneen moom amul kër gennu dégg ku ñëw mu may la du la dégg diine ji tey ñàkk na njëg lislaam ji ñàkk na mbalaar ni mu meloon ci sunna bu doon dugub mooy suuna si doonu ci tij ba ëbb si daa mel ni gob la yoroon sunna dafay ay xeeti xeet am ci yu tond am yu xóot am ci yu am ci yu tuut seex jii la defoon waaw jërëjëf soxna Diarra noo ngi leen di sant bu baax yéen waa académie seen liggéey bu rafet bi di ko rafetlu bu baax a baax euh, li ma laaj nag wax dëgg yàlla sawar naa lool ngir tontu ci ndax ki nga xam tey moom la ñëw ci bisam muy sëñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacké daloon kenn ci ñun rawatina sama mag bi nga xam ne day jàng xasida daan ko jàng sëñ Modou Gueye te son boobu ngeen di jàng ci ci ngeen di teg académie mu jàng ko ik fini bi aju ma masaa jot su ma ànd moom fii la ñuy ñëw fii ci jàkka ji ci biir fi leen daan njëkkati xasida fekke naa ba tàyyi ñu jàng xasida ba tàyyi sëñ bi génnal boppam moom sëñ Abdou Khadir yor benn mbusu boo xam ne tàndarma lay def jël ci tàndarma yi di ko xëpp maa ngi fàttali ko ni que mas nañ ko jàngal benn mois ba noppi ndeysaan ba mu noppee mu ne waaye eh, jàngal ko jàngal leen ko ñu jàngal ko keroog bi ñu noppee saako suukar la ñuy jox ak xaalis bu bari loolu maa ngi koy fàttaliku. kon moom kenn la woon koo xam ni ku ñëpp bëggaloon boppam la te kenn ku ne xam na ne wax na ni ñi nga xam te ne daan nañ jotaayoo ku tedd ki wax na ni jëmmam ji boo ko gisee rek moog Cheikhul Khadim arfin bi arfin la te kon jàpp naa ni kon sëñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke bisam bi bis la boo xam te képp koo xam ne teew nga fi te teew fi ni nga fi war a teewee mooy ci tax si moxo bi sunnati teg ko ci ak sell loo fi ñaan suñu borom mën na la ko dogal ndax moom fajukatu aaja la woon. dafa mel ne fii ñu taxaw tey mooy kër Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci lan mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku jàmbaar jooju di Cheikh Abdou Khadir Mbacke jàmbaari lislaam jooju Cheikh Abdou Khadir dana yomba fàttaliku dana yomba xamle ndax buñ ko xamle dañuy xam ne Cheikh Abdou Khadir Euh, ak xamam ko du jafe doomu Serigne Touba la doomu Serigne Touba xaadimu rasul ku nekk xam na ne foofu xam-xam ba dootul sori boo ne Serigne mooy waajuram dana doy ci ne xam ne Cheikh Abdoul Khadir mooy Cheikh Abdoul Khadir soxna euh, Aminta Boussa mooy waajuram wu jigéen Cheikh Abdoul Khadir nag mu ngi gane àdduna euh, ci 1914 ca ndaam daro Alimul Xabir bi mu gane àdduna it Serigne Touba xaadimu rasul moom moo ko tuddee Cheikh Abdoul Khadir Jilaani waaye moo ko defal lépp. yore ko ba mu am lu mat juróom-benni at mu jël ko jébbal ko mu jàngal ko dalal ko alxuraan mu tàmbali dal alxuraan mu jóge fa nag euh, jox ko sëriñ daam Abdourahman Lo sëriñ daam Abdourahman Lo jàngal ko alxuraan ba mu teel a mokkal alxuraan bind kaamil waaye rafet lool ab yar rafetu melin bi nga xamee ne it def na loola it ci la ko Cheikh euh, Serigne Cheikh Abdoul Khadir eh, Cheikh Abdourahman delloowaat Serigne Touba ci la ko Serigne Touba nag joxe Serigne Assane Boussa mi nga xam ne mooy mbokkam. ndax ku ne xam na ne Serigne Assane Boussa mi nga xam ne mooy mbokkam moo Serigne Mbacke Boussa ña bokk na rek baay waaye moom ak maam Diarra Boussa ña bokk Serigne Boussa bi euh, di nijaayam Serigne Assane Boussa yor ko ba def ci moom xam-xam bu yaatu jóge fa door ko euh, jébbalaat Serigne Mbacke busa Serigne mbakke Boussa yi def ci moom xam-xam bu yaatoo yaatoo yaatu muy ku bari xam-xam ku géeju lool ci wàllu xam-xam ba nga xam ne mën nañoo wax ne yamul woon ak kenn ci wàllu xam-xam ragal ak ragal yàlla noona ci la nekkee gannaaw bi 1900 mu ànd ak Cheikh dul Moustapha ba mu jógee fi mu ànd ak seex Cheikh Mamadou Fadel ba mu jógee fi euh, mu euh, ànd ak Cheikh Abdoul ba mu jógee fi euh, mu door a ànd ak Serigne Salihu waaye teewul nag ci loolu 1968 bi Serigne Abdoul Ahad nekkee xalif général booba la daal di nekk imaam yi jumaay Touba nekk na imaam jumaay Touba 1968. ba 1990 bi mu wàccee liggéey lépp moo nekkoon euh, ilimaani jumaay Touba wax nañ ne sax benn lañ xam boo xam ne la ko mas a tardé jullit juma mu nekk fii itam ba nga xam ne Cheikh euh, Salihu euh, bi nga xamee ne Cheikh Cheikh Abdou nelaw na mu nekk xalif général bi mu nekkee xalif général ñu bari doon nañ wax ne xalif général ak imam ñu koy boolee waaye mu xamal leen ne leen bàyyi xalif général gi te nekk imam bi moom a gën ndax imam liggéeyu yàlla la xalif général nag liggéeyu sës ci la waaye ci loolu lañ ko bàyyee mu nekk xalif général de Mouride waaye mu nekk imam jiit jiite ci jumaa ji jiite ci mbooloo mi nekk na fi waaye nag yàggul ndax li doon ab liggéeyam lépp defoon na ko lu jiitu loolu di am mu nekk fi onze mois fukki weer ak benn ci la wàcc ab liggéey bi mu wàccee liggéey nag bàyyi fi sëñ Modou sëñ Modou mi ko jëkk a wuutu nekk na fi ba 2003 sëñ Modou door fay jógee bàyyi fi Serigne Cheikh yàlla na fi yàgg loolu te wér bis bi nag mooy bis bi nu koy fàttalikoo rek dañ ko daan def ci ñetti fan ci weeru tamxarit waaye xam ngeen ne diggante benn fan ak ñetti fan jege na jege goo xam ne neexul a takk waaye léegi dañuy jël rek jàpp bis boo xam ne suñ caagee benn mu dajeeg ñetti fan wala mu dajeeg ñaari fan lu mu ca def rek day nekk ñaan te isi duwaa yan may maytan fil xubur wa yan fawul ay yow yooyu jibul ujjóor ñu di ko ci ñaanal di ko ci fàttaliku ci seex Cheikh Mouhamadou Mountakha nag lañ ko defee ren waa euh, kilifteefuk Serigne Cheikh Mbacke ak Serigne Moustapha ak Serigne euh, Sidi mi nga xam ne mooy comité de l'organisation bi nga xam ne ñoo yore wàllu màggal gi sëñ Idrissa mu ngi nii dend ak ñun waaye sëñ Mamor Diatara ak mboolem ñi nga xam ne ñooy comité bi nga xam ne ñoo yore liggéey bi liggéey bu yaatoo yaatu yaatal ko lool ci kanam Serigne Sidi waaye nag yal na leen yàlla may nu gën koo fekke ñu ngi leen sant bu baax baax di sant mboolem yéen ñi nga xam ne yéen fi teew di ko jël wasalaamaaleykum wa rahmatullah kër ji li julli lañ fa ak sunna xëyrul aalamin moo tax ñu def koy limaan nim fonk julli xam ko boo ko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp déglu ko ma wax la nim koy tewoon nim fonk julli xam nga ko boo ko xamul ma la ko ubbil sa nopp déglu ko ma wax la nim ko yitte woon asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi sëñ Mouhamadou Ndaxa Mbàkke xalif général des mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ban naa lim yéene yëpp ñu ànd ko moom barkeb suñu Touba di nuyu ci ndigalu seen Cheikh Baara sëriñ Cheikh Ahmad Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci buntu kër sëriñ Abdou Khadre Mbacke di ko ñaan yàlla suñu borom jàggal ko fi lool te wéral ko ak ki rakkam ak bépp taalibe boo xam ne mi ngi aju ci kër sëriñ Abdou Khadre Mbacke di cheikh di mbokk di wëlëre naka noonu noo ngi fas yéene yëkk yëkkati ay kàddu yoo xam ne day nekk kàddu cant ak ñaan jëme ko ci bokk taalibe yi nga xam ne ñoomit it ñoo sëriñ bi ñu ànd liggéey bi ndax bis bii nga xam ne mooy mooy bisub sëriñ Abdou Khadre Mbacké sëriñ bi daf koy fas yéene màggal at mu nekk ci jàng alxuraan xasida ak togg ay bernde di ko jagleel njabootu sëriñ Abdou Khadre gi nga xam ne ñoo fi nekk di magal bis bi loolu nag mi ngi ci ànd ak mbokkam rakkam sëriñ Baara Mbacké moom sëñ Modou Ñaaw sëñ baa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko sant ci taxawaay bi ci démb ak tey ndax gis na ne saa su nekk moom moom ñu ànd liggéey bi ci ndigal waaye mu def ci Pastef boo xam ne Pastef bu kawe la sëñ baa ngi seera loolu sëñ Cheikh mi nga xam ne mooy sëñ Baxaar si nun ak i rakam ak njaboot si baax gépp ci ne moom kat liggéey bi mu jógee sëñ Baxaar day sëñ Baara di ci gannaaw mu ngi koy sant bu baax waaye di waxaat mbokki tali bi ne leen mi ngi fàttali donga yi nga xam ne ñoo moom ñu ànd liggéey bi ci ne liggéey Sëriñ Tuubaa yi liggéey boo xam ne dafa am tànk kanam waaye amul tànk naaw te saa boo xamee ne laxal nga sa ndigg jëm sëñ day amul taxaw waroo dellu naaw mi ngi soñu ñëpp ñi nga xam ne ñoom moom ñoo ànd liggéey bi te leen fàttali nag ne moom de lum dugg da ciy fas yéene ànd ak waa kër Sëriñ Jóogu Mbàkke gi nga xam ne waajuram de di ab cëram muy sant xalifaam bi nga xam ne moo fi nekk di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu tiwala ko mag rakkam ak i magam yu jigéen muy sëñ Fallou Mbacké di waxaat dong ne leen sëñ Abdou Khadre Mbacké mii nga xam ne yàlla sëdd na ko muy muy sëñ Jiiri Mbacké doomam def na ko mu nekk jëwriñ ci liggéey bi lépp loo xam ne ñëw na andil leen ko yéen donga yi ci ndigal lu bàyyi ko ci moom da ngeen xam ne loolee moo ko wax nam ko leen ko waxee tey lépp du ko jox mu fas yéene ak ci moom loolee du jàddi fenn la ak ci moom nee na naa leen fàttali loolu di soññewaat nag liggéey bi ndax nee na saa boo xamee ne jébal na nañ liggéey bi nan takku fas yéene waajal diwen te xam mooy bis bii du ci mbooloo tax mu yow mii ko topp bëgg faat farata ci yoon waxtu wu nekk lam war a def nana ko def nag ngeen ji def te du ko wàññi du ko sof programme la yore julli gu nekk la mu war a ci xeeti jaamu yem ko sëf te mosu caa sàggane sef ma wax la yow mii xamul woon seex ci nii la daa xëyee setam am nii mu xaye njàpp sax la daawee roy na sëriñ bi ak yeneen daa lañ ak suba teel di ko joxoñ sunuy butéel mu dinu moo ngiru cofeel buy dàq njàqare la gannaaw fajar di jug taxaw jublu ci nun di laaj lu xew suñ ko waxee mu xam la xew mu jëf ca nag la ko waroon moom daana seet ku wopp ko te daana jokk mbokk ga daana julleet ku faatu ka kilifa lii lañ ci bëggoon kilifa lii ubbi fajar di jiite mbooloo may si kar ku ne mu wax ko la mu nar ku ne mu xam ci lim fanaan kii jiite julli juróom bis bu ne ngay génn juróom yoon ku ne xam yitteem dongaam bu ne dana ko miin kuy jiite julli juróom bis bu ne ngay génn juróom yoon ku ne xam yitteem dongaam bu ne dana ko miin seex jiri loo ko xas ba miin du soppi woo wew xaaral ma wax la man la miin maag sama waaja nañ jafaan taalibe bu war a tukki tey tey dala war a tukki mu bëgg ñaan bu ko gunge mu yal fandoo ko muy rañaan ma ko noon koy sama waay danaan ko gis léegi sa waay mu ni ma tey dem sa waay danaa ko gis lu jiitu ngoon ma ni ko danga ko gis bu wóor dana la ñaanal ñaan gu wóor lii ma la wax ci weeru koor lawoon ma wax la nan defoon kooka doon dem Amérique six heures ci ngoon la war a jóg nu xëy Dakar jublu si nag tubaab fi sëñ bi sàkku ñaan onze la génn nu siyaar deux heures la àndaat moom Dakar cinq heures la dem moom toog xaar sii mu dugg robb laat doomi Sëriñ Tuubaa dagam saa boo demee ba biir këram da ko gis gisit jëmam faw mu am ay kiliyaan ismaal fu wir dee ba mu jeex day daal am astaasu féex sunna si lay dundal mu jeex mu liir fa jàngal xuraan kilifa lay dallu bëccëg ismaar ba takkusaan bu jóg su ko defee mbir yëpp jàkk salaasu awraat ci la waan ñu ngi leen di jaajëfal ci safoo gi ngeen safoo seen télévision académie Minane di am mbégte ak kontante di leen sant bu baax a baax ci topp gi saa su nekk loolu lañ leen doon jëlale ci bis bi nga xam ni moom la ñu jagleel Serigne Abdoul Khadir Mbacke gis ngeen bu baax a baax image yi nga xam ni moom moo fi tukkee doore ko ci kër Serigne Cheikh mi nga xam ne moom mooy xalif bi ziar yi nga xam ne am na fa waaye tamit ay kàddu seede yi nga xam ne mbokk taalibe ya fa nekk yëkkati nañ ko jagleel ko ki nga xam ne mooy Serigne Abdoul Khadr Mbacké gis ngeen image nga xam ne moom moo bàyyi ko fi nga xam ne moom mooy kër Serigne Moustapha ak tamit fi nga xam ne moom moo di kër Serigne Modou moom Serigne Abdoul Khadr Mbacké kon ñu ngeen leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous beneen yoon jërë ngeen jëf